الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكي جلدي ما نجي دنك سام بوب راغال يالا ñu xam ne bokk na ci àq yi gën a mag gën a war ci ab julit àq yi ñaari way jur suñu borom tabaraka wa taala lënkale na ko ak àqi boppam te mooy wéetal gi ñu ko war a wéetal ci jaamu gi ñu koy jaamu lam ca teg mooy rafetal jëmi ci ay way jur suñ borom ne na ngeen jaamu yàlla te bu leen ko bokkaale ak dara suñu borom digal na leen itam ak rafetal jëme ci seeni ñaari wayju suñ borom yàlla wax ne yàlla dogal na digle na ngeen bañ a jaamu kenn ku dul moom waaye di rafetal jëme ci ay wayju suñ borom tabaraka wa taala dénkaane ko ndénkaan moo gën dëgër ndigal ndigal lu feddaliku la suñu boroom ne dénk naa nit ñaari way juróom dénk naa ko ci ak rafetal waxaat ne dénk naa nit ak rafetal ci ñaari way juróom dellu waxaat ne dénk naa nit ñaari way juróom yaayam da koo ambu ci ak doyadi muy ak néew doole ak ñàkk wér nàmpal ko itam ci diirum ñaari at mu ne kon nak na ngeen ma sant waye tam ngeen sant seeni ñaari wayju bokku na ci melokaani yonent yi alayhi salatu wassalam yi nga xamne suñu borom tagge na leen ko top seen ñaari wayju loolu mu lay xamal ne kon top ay wayju jombul ci kenn ndax yonent yi ñoo gëna a ci nit ñi nga xamne sax ñoo ëpp daraja seeni wayju fekke ñeneen jur duñuy yonent waaye teewul ñu diggal leen ñu topp leen suñ borom a ngi wax ci yaxya alayhi salaam di ko melal ne wa barran bi waalidayhi te moom way juróom bu góor moom ab yonent la muy zakariya walam yakun jabbaaran asiya nekkul woon nit ku fetteerlu nekkul woon nit koo xam ne kuy moy la kon nag ku toppul ay woy juróom rek nit ku texee di lay doon ku fetteerlu lay doon ku dul topp ndigalul kenn lay doon suñu borom del wax ci isa alayhi Salam, ba muy wax mom isa alayhi Salam, ci lamiñu bopam di wax mom moy kan bokku na ci lam wax ne wa barran bi walidati bokku na ci lima ma digal may top sama wayjur wu jigen bi nga xamne mom mom rek moy wayjuram ndax mom wayjur wu jigen rek la am mune walam yajalni jabbaran saqiya defuma ko fetterlu defuma ma nek tam ku top ay wayjur jur yëkkatiku na lool ba moom sax lañu jiital ci jihad fi sabilillah muslim nett li na jële ci abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhuma bu dee jihaad boo xam ne coobarew la ñu nag jihad boo xam ne imaam moom moo ko woote ngir noonu yoo xam ne dañoo dëgg dugg si ci julit ñi waaye ki nga xam ne moo coobarew rek bëgg a dem ca jihad ba koku taxawu ay way juroom su fekkee laaj na ko moo jiitu lool mu ne am na benn waay bu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko damay jaayanteeg yow ci gàddaay ak ci jihaad loolu nag dama koy def di ci sàkku ak pay ci suñu borom tabaraka wa taala di wut tuyaaba yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko ndax kenn ci sa wayaari way jur mi ngi dund mu ne waaw ñoom ñaar ñëpp sax ñi ngi dund mu ne ko tey itam tuyaaba rek ngay wut ak payuk suñu borom rek ngay wut mu ne waaw mu ne ku kon dellul ci sa ñaari wayjur nga rafetal na ngay nekk ak ñoom laajoon nañu yonente bi alayhi salaatu wassalam jëf yi jën jëf la ci suñu borom tabaraka taala gëna sopp mu julli ci waxtoom kooka laajaat ko ne ko ak lan mu ko topp say wayjur rafetal jëme ci ñoom def lu baax jëme ci ñoom mu ne ko ak lan mu ne ko nak jihad ci yoonu yalla rafetal googu nga xamne suñu borom tabaraka taala mom lay digle di ko ci ay wayjur day ëmb mbooleem anami rafetal yi rafetal mom buñ ko waxé ni lepp duguna ci lepp lu bax rek lu rafet la mo xam wax la mo xam jëf la kon rafetal ci ay wax wax ju tey dañ dugg ci biir suufeel sa kàddu jokk goo xam ne bu continue la waxuñu bu teyee nga def bu ëllëgee nga bàyyi di rafetal ci di leen liggéeyal di rafetal ci di leen jox alal di rafetal ci di faj seeni aaju di leen doxali seeni soxla di rafetal ci di leen ñeewante di sàmmanteeg seeni yëg-yëg bu ñu amee mbégte nga ànd kook ñoom bu ñu amee tiis itam nga ànd kook ñoom rafetal ci di bañ di tas seeni yaakaar ak di gëstu lépp loo xam ne lu leen di may ngërëm la te doon suñu borom tabaraka wa taala gërëm lépp loo xam ne lu ñu bëgg la te doon lu suñu borom tabaraka wa gërëm doom ji di gëstu loola ngir rafetale ko jëme ci ay wayjuram suñu borom a ngi wax ne imma yablughanna indaka al-kibar nee na wayjur yooyu suñu demee ba nekk mag fi yow nga fekke ko nga fekke seenu mag ahaduhuma aw kilahuma kenn ci ñoom moo màggat wala ñoom ñaar ñépp ñoo màggat bu boobaa nag la nekk ak ñoom di gën a metti boobaa fala taqul lahuma uffin bu leen wax kàddu goo xam ne day nuru na da nga leen a jëppi kàddu goo xam ne day nuru na da ngaa dàcc da sonn ci taxawu gi nga leen di taxawu bu leen gëdd bul yëkkati sa kàddu waaye na nga leen wax wax joo xam ne ju tedd la wax joo xam ne ju lawet la wax joo xam ne ju rafet la doonte la ñuy sàkku sax mënoo ko waaye na ngay tontoo na doon lu rafet loo xam ne luy sedd seen xol lay doon bokk na ci rafetal jëme ci ay wayjur sa daraja nu mu mën a toll ak cër boo mën a am ci xam-xam ci alal ci cëri àdduna cër boobu bu ko wane ci say wayjur na nga wàcc cër booba ci seen wet bul wane ak rëy ci ñoom suñu borom nga wax ne wax fit lahum ajana azulli min arrahma na nga wacce leen laafum toroxlu te yërmande rek tax mën lepp luy tektal ak suufe ci seen wet nang ko def bul ñew fekk leen ñu tok ci suuf nga na faaw yow da ngay tok ci kaw ndax yow da ngay kilifa bul ñew fekk leen ci neeg bo xamne ci lay ne yow nga na neeg bobu do ci dugg bul ñew fekk leen ñu lek ñam bo xamne yow nga na ñam bo do ko lek loolu lépp yëkkatiku ci seen kaw la te fekk na loolee ñuy lekk ak foofee ñu dëkk àndoon nañu ak yow di ko lekk ànd ak yow di dëkk foofu waaye mu ne na ngay wax ne yàlla yàlla na nga leen yërëm na nga leen di ñeewanti di leen xool batu yërmande sa xel di dem ci nañu la yërëme woon ba ngay ndaw di gone mënoo dara nañu la yërëme woon mënoo leen sax yërëm yërmande ju toll noonu ndax lu bon bon ñoom am na lu ñuy seen bopp yow nag tollu woon nga foo xam ne mënalu woon sa bopp dara lépp ñoo la ko doon mënal bokk na ci rafetal jëme ci ay wayjur di leen jiital di leen gënal ci lépp loo xam ne lu ñuy jariñoo la moo xam aw ñam la moo xam lu ñuy naan la moo xam lu ñuy sol la moo xam lu ñuy war la lépp bala nga caa sédd sa bopp wala nga cay sédd sa njaboot na nga leen ca jiital ba noppi loolu xissa bi ñëwoon ci ñett ña duggoon ca xuntima doj wa tëj leen fa ñu ne fii de dara mënu nu fee génne lu dul suñu borom tabaraka wa taala kon nag nañ ñaan yàlla waaye kenn ku nekk na def tawassul ci jëf ju baax joo xam ne defoon na ko ngir yàlla am ca kenn ku ne moom dafa yoroon ñaari jur yu màggat yor itam njabootam bu masaa sàmmi nag ba wàcc ratt meew mi indi balaa masa jox doomam wala soxnaam ñaari waajuram lay jox ñu naan ba noppi benn bis nag nee na mu guddee ca càmm ga ñëw fekk ñaari way juróom nelaw mu ñëw taxaw bëggu leen a yee waaye bëggu la njëkk a dox meew mi soxnaam walla doomam mu taxaw rek doom yi di jooy di wane dañoo xiif waaye joxu leen ba fajar ba way jur yeewu mu jox leen ñu naan ba noppi mu doog a jox ay doomam doo ko jox soxnaam mu ne suñu borom tabaraka taala su fekkee loolee ma def sa jëm rek taxoon ma def ko kon yàlla nag lu génne fii ba mu ko defee doj bi daal di ror ma kon def lu baax jëme ci ay wayjur bokk na ci li ñuy sababloo ñaan ko nangu kon ndeke nit ki bu amee aajo bala muy jëme fenn alal na ko jëme ci ay wayjuram ñaan suñu borom tabaraka taala mu fajal ko aaju joojee bokk na ci la ca gën a bokku na ci rafetal jëme ci ay wayjur di leen ñaanal ak di leen jéggulul suñu borom tabaraka taala loolu yonent sax dañ ko doon def ibrahim alayhi salam, donte sax moom wayjuram booba nekkul ku gëm yàlla nekku ko sax ba nim fi jógee waaye teewul mi ngi ko doon ñaanal ak njëggal di wax ne rabbi xfir lii wali wali rabbana xfir wali wali day walil muminin yàlla nga yàlla nga ma jéggal maag samay ñaari way jur ak mbooleem ñi gëm yàlla waaye ba mu faatoo nag faatu ca kéefar ga nag booba nag moom ñaanalatu ko njëggal nag ndax boobaa kenn dutu ko sañate ñaanal njëggal moo tax mu rabbi ne wa maa kaana istigfaaru ibrahima li abihi إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم نيال كم دون نيال way juróom njëggal moo ko ko digoon ne ko sa astaxfiru laka rabbi la ko waxoon kon dafa koo digoon waaye ba mu ko ne kii nag moom noonu bu yàlla ci loolu la nar a te sax ca la booba nag la génn ci moom ba set wecc nuux alayhi salaam moom itam daana ñaan njëggal di ko ñaanal ay way juróom doon na wax ne rabbi xir lii wali walidayya wali man daxala bayti yàlla yàlla na nga ma jéggal yàlla na nga jéggal samay waajur ak képp koo xam ne ku dugg sama kër la te nekk gëm muminan walil muminina wal muminaat bokk na ci mbaaxuk suñu borom tabaraka wa taala ak ngëneelam lu mu defal jaam ñi baax ci ay waajur rafetal jëme ci ñoom yëmul ci bu ñu faatoo rek na jeex na même bu ñu faatoo mën nga ko wéyal ndax léeg-léeg nit ki ak ñàkk xam ak réer mën na koo jàpp ba ba bi juróom di dund mu sàggan lool ci ñoom ba ba muy gindiku nag xam ne moom li mu doon def njuumte la fekk na ay waajuram nekkatuñ fi waaye boobaa itam nag na góorgóorlu ci di leen ñaanal di leen sarxeel di jokk seenu bokk di rafetal jëme ci ñi nga xam ne seeni xarit lañu woon imaam ahmad solo na jële ci malik ibnu rabia al aslami mu ne am na waa ju ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah ndax des na dara lu ma mën a defe lu baax ci samay wayjur gannaaw bu ñu faatoo ndax mën naa defati dara lu baax jëme ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ñeenti mbir bu njëkk bi mooy dee leen ñaanal ba ca des mooy dee leen jéggalul suñu borom tabaraka wa taala ba ca des mooy deel wéyal kóllëre ya ñu amoon ya ñu amoon ak ay nit yoo xam ne ci yàlla rek la woon kóllëre googa dee ko dox deel teral tam del teral ñi nga xamne seeni xarit lañ woon seeni soppe lañ woon del jokk bokk gi nga xamne mëno ko jokk lu moy ci ñom la jaare ndax ko bokkal rek ci mbokk way jur moo la booleeg moom benn bàyyi mo la ak mom wala yaay moo la ak mom koku muy buntu bi nga xamne ko bokkal rek moo la ak mom kon mëno jokk bokk lu dul ne dang ko jaare ci sa wayju fokk nga wax li la bokk ak sama baay wala li la bokk sama jaay mu ne ko loolu mooy li nga xam ne moo des ci loo mën a defee lu baax jëme ci ñoom gannaaw bu ñu faatu bokk na ci li ñuy rafetale jëme ci ay way jurit doom ji góor góorlu ci boppam ba fexee nekk ku baax dëgg la su baaxee boppam la baaxal man amila salihan fali nafsi waaye mbaaxam googee ay way juram dañ cay jariñu ndax bu leen ñaanalee bu boobaa suñ borom day nangu ñaan muslim solo na jele ci abi hurayra radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dom adama su gende aduna faatu limu don doon lepp lépp lay dagg ludul ñet yo xamne mom deggut ba legi tuya ba léegi ko fay fek ben ba mu ne sadaqa jariya sarax bo xamne buy weey la bu sarax bo xamne dañ koy jëfandikoo tay rek mu dal di jeex waye sarax bo xamne ne day continuer ñu koy lu mel ab teen bo xamne nit ñaa nga di ca root fajukaay boo xam ne nit ñaa nga continuer di ca faju jàngukaay boo xam ne nit ñaa nga continuer di ca jàng wala dëkkuwaay boo xam ne da nga ne ku amul fu mu dëkk dafay dëkk nit ñi continuer di ca jariñu man daa daan bàyyi fi loo xam ne njariñ la day continuer loolu tuyaaba ca daf lay fekk foofu ba ca des mu ne xam-xam bu mu fi bàyyi boo xam ne bu ñuy jariñoo la ndax nag du xam-xam yépp la ñuy jariñoo waaye xam-xam boo xam ne bu ñuy jariñoo la te la ci jiitu mooy xam-xamub diine waaye bu dee même xam-xamub àdduna boo xam ne bu nit ñi mën a jariñoo la masalan jàngale woon na fi lu jëm ci wàllu lu ñuy faje wala ay pexe yu ñuy mën a liggéeye liggéey bu lew mu jàngaloon ko ay nit ñooñu continuer di ko jàngale di ca am lu lew lu ñuy mën a jariñoo loola itam tuyaaba ja da cay jot moo tax mu ne rek aw ay ilmin yuntafau bihi ñetteel ba nag mu bàyyi fi doom ju baax du koy ñaanal ndeke kon du doom ju ñaanal way jur rek way jur wa jot ca da borom bi da caa sart na doon doom ju baax aw waladin saalihin yad'u lahu doom ju baax du koy ñaanal moo tax kon way jur li mu gën a war a yittewoo mooy fexe yar ay doomam bañ nekk nit ñu baax bu boobaa bu fekkewul seenu man-man dara ci àdduna it ndax man-man yi àdduna moom amul solo ñu bari nag doom liñ koy doyee rek mooy mu jariñ leen ci àdduna na ma defal lii na ma defal laa ci li gëna bari jamono ba muy man lam lay defal dana fekk na sax yow dooto ca mëna jariñu lu bari dana fekk nga nekk mag ba bu dee lekk ga dooto ko wo bu dee dëkkuwaay ya dëkkuwaay yu yek yu bare bare bari dooto ko aajowoo kon la ëpp solo ci lu mu lay jariñ mooy mu nekk nit ku baax koo xam ne dafay desal saw tur desal saw tagg lu mu def ci lu baax buñ ko tuddee ñu la ne doomi diwa su ko defee nit ñi buñ ko ñaanalee ñaanalaale la waaye moom ci boppam nag mu lay ñaanal ndax mbooleem ku lay ñaanal moom moo ca jiitu ak ñaanam moo ca gën a kon doom ji war naa góorgóorlu ci ak mbaax ngir boppam waaye ngir bu ñaanalee way juram mu mën caa jot bokk na ci ni ñuy rafetal itam jëme ci ay way jur jokk ñi nga xam ne seeni soppe lañ woon nga di leen jokk di leen seeti di am ci ñoom yitte waaye bul ne rek diwkat moom ba fi suñu way ju jógee ba léegi ñun gisatuñ ko déggatuñ ko bu ngeen ko gisul déggu leen ko ji yéen a ko war a seeti yéen a ko war a seeti jokk bokk kooka ndax mën naa am moom moo leen féete ci kilifteef la mu seqoon ak seen way jur moom la ko seqaloon kon yéen la muy seq ak yéen yéen a koy def yéen itam waaye bu mu mel ne bor bu muy fay la defu leen dara ci moom ba noppi bëgg mu wéyal la mu doon seq ak seen way jur kon njaboot gi ñoo ko war a dox yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena bokku na ci li gëna baax lu gëna rafet lu nit mëna jokke ay wayjuram neena mu jokku ñi nga xamne ay soppe yi wayjuram juram lañu won gënaaw bu ay wayjuram juram woné gënaaw muy jokk ak di jema nemmiku ñi nga xamne ñëpp xamna na ne seqoon nañu wayjuram juram dara bokku na ci rafetal jëme ci ay wayjur itam baña leena ñax mana baña gis sa bop ci dara lo leen di defal bu ñuy dund nga baña gis sa bopp ci dara loo leen di defal yaay joxe dépense kër gaag du tee nga jàppe sa bopp ku ñu yilif waaye gannaaw yaa mën ci kër gi dara nga jàpp ne kenn yilifatu la léegi ñi nga mag ak ba ci way jur yi sax da ngay jàpp ne yaa leen yilif bala ñoo def dara dañ laa war a tàggu loola bu boobaa duutu ak rafetal loolu am man la moom la borom bi naan wala tubtuloo sadaqaati gu bel man ni wal aza ak loo man man dara rek du tee ñala ca mag jàppee leen mag way jur yi a ñoom taxul ñuy wax loo leen mën a defal rek teewul nañu yilife ñi amul dara noonu lañ la yilife waaye bul dem ba jàpp ne way jur yi ñi muy yilif mooy ñi mënul dara wala ñi mu yor ci biir kër gi waaye yow mi jekk ba dem ber sa kër yore ko kër gi itam yaa fi joxe dépense bi yow kenn yilifatu la wala sax yaa yilif kër gi loola moom bu boobaa al man lay doon boobaa ñaawal jëme ci ay way jur lay doon ndax nag loo mën a def rek mënta ndax ñoom li ñu def ci yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na doom du mën a fay wayjur ba ci sax bu ko fekkoon mu nekk ab jaam mu jënd ko goreel ko même bu ko jëndee boobu même bu ko goreelu ti day daal di gore ndax wayjur dañuy wax ne doom fu mu moomee wayjur rek wayjur woo moom gore la doom fu mu moomee wayjur fu ko jëndee wala mu donn ko loola bu boobaa dafay daal di gore nee na lool bu ko defoon sax taxul mu fay ko àqam bokk na ci ni ñuy rafetale jëme ci ay wayjur itam bu fekkee jamono bi ñuy faatu dañ fee bàyyi boru koor man a amoon nañ boru koor bi ñu ko dataan fay feebar dikkal leen ba faatu dikkal leen nga fayal leen koor googu loolu bokk na ci rafetal jëme ci ñoom wala jotuñu woon a aj itam nga ajal leen gannaaw boo ajee makka ba noppi ba aj wàcc la boo ko manee nga ajal say wayjur yéene leen yool loolu bokk na ci rafetal jëme ci ñoom mbokki julli rafetal ak def lu bax jëme ci wayju nak limi mag mag nak teewul nak da am fum yam ndax nak seen àq lu mu reey reey nak àq suñu borom tabaraka taala moko jitu ndax àq ji sax suñu borom mo leen ko jox ndax yàlla mo le bind jaarale la ci ñoom ba tax na kon nak bu leen jox ci àq yàlla dara nak motam borom bi ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun bu ñu dee bëreeg yow nara a xeex ak yow ngir bar la duggal ci lo xamne bokale la lo xamne ne amul ben dalil kaida na ñoom nekkon nañ ci diina ju leerut nekkon nañ ci lo xamne ne yow yalla dimbali la nga jang ba xam diina ju wer ñu bëgg la ga ci ne ci li ñu nekkoon ci ngay ne xam ngeen loolu dana tagale way jur bari ak seeni doom bëgg na rek faw li nga ma fekkon ma nekk ci maag samay baay ak samay maam yow itam ci ngay ne ah loolu nak la borom bi de lo bëgg bëgg bëgg déggoog ñoom nak bu mu tax nga fekk leen ca lool fala tutixuma bu leen topp la wax waaye nag wasaaxuma fi dunya maarufan bu mu tax nga dagg leen itam nag na nga ànd ak ñoom ci àdduna ànd bu jekk ànd bu jekk mooy lu ñu soxla ci soxlay àdduna loo ca man nga def ko waaye sa mbirum diina nag moom ah bu leen ca may dara nag ñu la cay dugal ci loo xam ne moom wérut ndax diine du lu ñuy donnante diine kenn ku nekk da nga koy jëlee fañ ko war a jëlee muy alquran ak sunna muy lu bees teq waaye du photocopie kenn ku ne da ngay am original bi ndax original bi mi ngi fi waaye dama copier ci sama baay sama baay copier woon na ci maamam xam ngeen ne copie sax bu yàggee day fulu dutu leer aw kayit buñ ko jëlee di ko photocopie di photocopie kenn ku ne photocopie day mujj sax dootoo ko gisati moo tax diine du lu ñuy photocopie lu ñuy jëlee ci alquran la mi ngi fi borom bi da garde na alquran ji fi andi woon diine ju wér ji ba léegi mi ngi fi fa sahaba yi jele won diine batay man ko fa jele muy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alaihi wa sallam motam borom bi di ngagne ñi nga xamne seen diine du dara lu may lima fekk bax rek inna wajadna aba ada. ñun daal li lañ fekkon suñuy bay nek ci kon lol moy diine ku ko genn ku bon nga ku genn aw xeet nga ku moy say wayjur nga itam yi nak bu ñuy mom ak li yalla mom da ngay gis way jur woo xam ne su bëggee dugal doomam ci lim nekk jàppe ko diina doom ja nekku ca mu ne doom ju dëng la moo tax borom bi ne allahu alamu bima fi nufusikum in takunu salihin way jur yoo xam ne nag kenn mënta am seen ngërëm ndax la ñuy woote du lu jaar moo tax borom bi ne bu boobaa nag na ci seen xel dal bu lay móoloo ko xas te fekk ne yow li nga war a def lépp def nga ko borom bi nee na moom xam na li nekk ci yow boo baaxee xam na yàlla mooy note in takunu salihin amna na wayjur yoo xam ne dañuy farfarloo am na ka gën a dëng ci seen njabot leg leg mom lañuy ñuy mom lañuy tag mom tagg bëgg ka ci gën juk mom lañuy xass ne mo bon te fekk na lepp bokay def ci mo ci gën juk lool ak bu bu mu la naqari nga tiit ñaan yalla yamuy ñaan yalla ak yamuy wax loola borom bi tabaraku taala kenn du ko sàll muy def ci kenn kenn du ne ko defal diw ci nangam mu defal ca loola moom kenn ku nekk la yey ci yow moo koy defal boppam kenn du ko ko proposé loolu itam Eh, matna bayi xel bu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne laa taata li makhluqin fi masiyati al-khaliq kenn du top mbindeef ci loo xam ne ak mooy yàlla la ndax ñu bare bare bari ci seen mbirum diine jafe-jafe bañ ca am mënuñoo dund lu leer dañuy dem ba xam ne lii lu leer nañ la waaye ñu ne su ma ko defee damay juuyoog samay wayju sama wayju daf may génn samay bokk dañ may mere te mbirum diine mbirum bàmmeel la àdduna la ñuy séddaate mais alaxira amul séddaate aduna mom man nga am say ak lo xamne ya ko mom nga baye ko nit man nga ko def waye lu jëm ci birum àllaaxira nak, birum bammel ndax birum bammel day yow kep kep kep la aduna mom loh fi def yak nit ñee ko bok bammel nag mom bokku ko kenn motax lu jëm ci bammel nak kenn du ci sedd kenn dara te moy diine diine nga yobale bammel boy dem bammel amo dara lo yor fi lu diine diine joju do nga yobale tay nak yow rek ko sekk sekkato ko kenn sa borom rek nga ko sekk moo tax loola bu eh, kenn du ci sedd kenn du tee nag da nga ànd ak rafetal wax wax ju nooy waaye nag ànd ak dëgër këng nag ci la nga nekk kenn du la ca mën a jële da nga nooyal nag da nga masla waaye nag maslaa ma bu mu jëm ci sa diine da jëm rek ci sa doxalin àdduna eh, bokk na ci li ñuy rafetale jëme ci ay wayjur donte rafetal jëme ci way jur googu am na ay ngëneel yu màgg nag ay meññet yu baree baree bari yu ciy juddoo itam la ca gën a rëy ci lu ciy juddoo ci koo xam ne rafetal na jëme ci ay wayjuram mooy am ngërëmul yàlla ndax yàlla moo ko digle yàlla lu mu digle ku ko def da ngay am ngërëm moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ngërëmul yàlla des na ko amee ci am ngërëmul wayjur fekkente ne wute nga ko na ko suñu borom tabaraka wa taala digle la nga wut ngërëmam it lu yalla bëgg la waaye wala jur wu lay def loolu loo xam neexul yalla nga def ko bam mu la loola kat du taxa am ngërëmul yalla waye merum suñu borom tabaraka taala nga ci jëlé bokku na ci limuy jural nit ki itam wërsëg wu yaatu ak fan wu gudd loolu dana sababoo ci def lu baax jëme ci sey way jël nañ ci anas ibnu malik radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena ku bëgg yàlla yaatalal la sa wërsëg yeexil la yeexeel la saw fan bàyyi la fi ba ci kanam nee na na ngay jokk sag bokk bokk nag buñ ko waxee ci way jur la tàmbalee ndax kat suñu borom ak ñi ci wax ci alquran xale boo xam ne dañ koo rey dafa am ku mu dajeel ci mbedd mi muy waaju baax joo xam ne eh, suñu borom tabaaraka taala moo ko yabal mu dajeeg moom rek rey ko ba muy tekki nag li tax rey ko daf ne xale bii ay way juram dañoo nekk nit ñu baax wa ambal xulaamu fa kaana abawaahu muminayni fa xasiina an yurhiqahuma tuxyaanan wa kufra te ñu xam ne bu màggee dana leen sonal ci ak weddi ak ndëngte goo xam ne ay wajurum ñu tal sax jaamu seen borom ndeke kon nekk ku të ku nar a sonal say wayju te say wayju nekk nit ñu baax mën naa tax a gàtt fan mën naa tax a gàtt fan loolu ndaw yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bu fekkee jur yu baax nga am yu jub yuy ragal yàlla boo leen naree teg coono suñu borom mën na la fiy ah su fekkee dañoo dëgg rek ñoom itam loola lañ lebaloon seen baay mën naa am yow itam loola nga leen di fay yow it boo màggee sa doom fay la ko rek ngeen di fayante dem kasalik nu walli ba'da zalimina ba'dahum bi ba'd borom bi nee nag tooñkat yi moom benn bu ne lay jël dumaa ko morom ma waaye tooñkat nag su bëggee duma ku baax nag moom ñu far ko duma moom bokk na ci li nga xam ne itam danañ ko jëlee ci def lu baax jëmi ci wayjur mooy ñaanu wayjur ci doom suñu borom tabaraka wa taala daf koy nangu ak ñaanam jël nañ ci abi xorayra mu ne yonente bi salaa sallam nee na ñett suñu borom day nangu seenu ñaan nee na loolu amul benn sikki sàkka bu jëkk bi nee na mooy ñaanu ku ñu tooñ ku ñu tooñ moom doonte bi yëfër la waaye dañ ko tooñ parce que ñu bari dañ jàpp ne wala kii gëmul yàlla waaye bu la neexee jël àllam bu la neexee def ko déedéet ñëpp jaami yàlla doon te gëmul yàlla digganteem ak yàlla la waaye sa digganteeg moom moom da nga ko war a sàmm da nga cee war a maanu kon ku ñu tooñ rek bu ñaanee suñu borom tabaaraka taala day nangu ñaan ñaareel ba nee na kuy tukki kuy tukki itam bu nekkee ci tukki tukki boo xam ne bu dagan la tukki bu lislaam gërëm la bu ca nekkee moom itam bu ñaanee suñu borom day nangu ñaan ñetteel ba mu ne ñaanu way jur ci doom way jur wu ñaanal doomam loola bu boobaa moom itam suñu borom tabaaraka taala day nangu ñaan kon nag mbokki yi dañu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax loolu dafa manqué lool léegi. ndax gone yi dañuy teel a bëgg seen liberté bopp teel a bëgg moom seen bopp ba suñu amul dañuy jàpp ne seen i wayjur ñoo leen tardeel suñu amee itam dañuy daldi bëgg a fuuy defe ne seen njàmbaare leen ko may ñaar yooyu yëpp nag day tax ñu bëgg a won seen i wayjur gannaaw su fekkee jéem nañ jéem jéem seen i mbir doxut dañuy mere seen i wayjur defe ne ñoo leen tardeel ñoo leen jaaralewul fañ leen war a jaaral su demee ba teel a jekk réussir am dara itam daanaka du ko sant ay wayjuram day defe ak njàmbaaram la ak góorgóorloom la léegi kenn yilifatu ko mënal na boppam ñaar yooyu yëpp nag benn bu ci nekk erreur la wayjur yi boo ñàkkeeg boo ameeg lépp moom cër bi ñu am ci yow dara du ca tegi ndax ba ñuy sonn ci yow ñoom xamaguñu woon nooy mel xamuñu woon da ngay am wala da ngay ñàkk da baax wala da ngay waaye yàlla moo leen diggaloon ñu taxaw la ndax kat yàlla ni mu digalee doom na fonk jur noonu la digale woon wayjur na taxawu doom way jur wu jigéen wa daf ne wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayn su doom juddoo mu ne yaay ji nàmpal ko yàlla ku digal na ko nàmpal ñaari at bu fekkee daa bëgg a nàmpal bu mat daal ne bàyyi bayit wa alal mawloodu lahu risquhunna wa kiswatuhunna bil yow mi ñu jural doom ji yow itam nag soxna sii toog di nàmpal yor doom ji moog doom ji yaa leen war a yor lu ñuy lekk ak lu ñuy sol ak lu ñuy fajoog lépp yaa ko war a lijjanti gis nga kon bëgg a juddoo rek la yàlla sas say way jur ci yow kii mu ne ko nampal ko par force te du la fay dara kii itam demal wuti dépense di ko joxe te doom ji du la fay dara ngeen di ko joxal gratuitement bu nelawul du ngeen nelaw su feebaree ngeen ñàkk jàmm lool moo tax su demee ba nekk mag moom itam nag bor boobu moom itam dafa war a continuer di ko fay la ko yàlla digal ci awee juróom bu di ko def yàlla na yàlla defal tawfiq ñu mën a topp ay ndigalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain